asalaamaaleykum mbokki internaute soppe yi ak téléspectateur yu TMS TV euh, tey nag ñu nekk ci fan fanweeri fan ak benn ci weeru juillet euh, ñu war a def li nga xamante ni mooy élection législative yi nekk quatorzième législature tey nag ñu ngi fii ci Mermoz nekk ci euh, école Mass Massaër Niane un fii nombre bureau de vote yi fi nekk nag lim bi mu ngi toll ci neuf bureau de vote nombre d' inscrits bi mu ngi tourné ci cinq mille trois cent huit bureau de vote waaye nag gis nañu ne am na ay kilifa yu bëri yi nga xamante ni war nañu fi woote ku si mel ne papay Barthélémy Diaz ku ci mel ne aussi Barthélémy Diaz ak ki nga xamante ni moom mooy euh, le directeur Alpha bay la Guèye mi nga xamante ni moo jiite Exca ñoom ñëpp nga xamante ni fii la ñu war a euh, daal di wote waaye gis nañ ne nag euh, bis ci subaak léegi ñi ñëw di fi voté nag lim bi ba demeegul noonu bu ñu ko daal di koy comparé ak li nga xamante ni moom mooy élection élection locale yi nga xamante ni génn nañ ci kon nag dañuy dugg ñu xoos kilifa yi ñu xuus xool kilifa yi nga xamante ni wax nañu voté fii nga xamante ni moom mooy école Mass Massaër Niane ñaan en tout cas sont en train de s'affairer pour aider les populations notamment les personnes euh, âgées à se déplacer pour venir euh, faire le vote avec cette euh, menace de pluie mais nous espérons que les choses vont se rattraper d'ici la fin de la journée Non, le dispositif, comme je l'ai indiqué, nous avons l'habitude de cette, euh, cet, euh, cet exercice. Donc vous avez pu constater que dès 8 heures, nous avons pu ouvrir le bureau de vote, les bureaux de vote. Les partis qui doivent y être représentés y sont déjà, en tout cas pour ce qui nous concerne, Benno Bokuyakar. Donc les choses se déroulent très bien. Donc euh, nous sommes satisfaits du déroulement des opérations. Et le combat aujourd'hui de la journée, c'est le combat pour un bon taux de participation. Donc je crois que euh, vous savez euh, bien sûr, euh, globalement, Dakar était sorti, euh, Benno était sorti victorieuse pour Dakar. Mais c'est vrai, cette commune faisait partie des communes que nous avions perdues. Mais nous sommes euh, des hommes politiques Euh, la politique, c'est euh, comme ça. L'alternance, elle est consubstantielle à la démocratie. La démocratie suppose l'alternance. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Mais cette fois-ci, nous sommes très confiants parce que nous sortons d'une consultation euh, directe avec les populations et c'est ce qui fonde notre optimisme. waaw yaakaar bu bu rëy nañ ci am ndaxte gis nañu ne ci campagne bi yi ñu dem yëpp nit yi jox nañ ñu nopp te élection bi moom dafa nekk élection boo xam ni euh, dafa particulière donc parce que euh, daanaka ci doxalinu réew mi la donc euh, ñu yaakaar ne rek bi yoon moom dina baax ndax loolu nañu seetlu ci terrain bi waaye nag démocratie moom ñàkk ak ak perte gagné ak ñàkk moo ànd ci démocratie homme politique bu nekk da nga ko war a di ko sóoraale da xam ne ñun ñëpp benn nañu moom c'est un fils du terroir donc il a toutes les chances que tous les autres ñun aussi on est des fils du terroir nous compétissons te yaakaar naa ne bi yoon incha allahu yàlla dinañu may ndam waaw départementale de Benno Bokk Yaakaar j'habite dans cette commune te tamit euh, presque depuis 70 maa ngi fi et c'est ce qui donne l'importance que boo ñu ñëwee di def les joutes démocratiques dafa baax pour que les populations jóg exprimer wu parce que dañu nekk ak ñi nga xam ne ne que ñoom nañu nekkandoo màggandoo fi ñu ñu nekk suñuy waajur aussi suñuy papa ak suñuy yaay yoo xam ne ne que xamante nañu mu baax loolu moo tax ne que léegi maa ngi koy dénoncer que bu ñuy faussé li nga xam ne ne que mooy élection yi mooy ngay def transfert parce xam ne ne dëkku fi dundul li nga xam ne moom la gox bi di dund loolu dafay fausser le jeu démocratique donc dafa baax pour que ñun ñu xam ne ne li ñu bëgg mooy émergence su Sénégal teg yëpp sur les lois si yoon ak si charte yu pour que ñëpp respecté ko moi je suis député de la treizième législature donc li nga xam ne ne que moom la ñuy sukkandiku c'est notre constitution parce que constitution li mu wax ci surtout li nga xam ne ne que mooy échéance yi dafa daf ko teg si yoon nga ñëwati encore mu am règlement intérieur bi nga xam ne ne l'Assemblée nationale daf ko yore muy muy règlement nekk loi organique mais surtout ñu sukkandiku aussi si li nga xam ne moom la euh, chef de l'État bi ñu fal daal di teg li nga xam ne ne moom la ne nii laay defee sama politique donc politique boobu daf ko basé si li nga xam ne mooy le plan Sénégal émergent donc lépp loo gis assemblée di ko liggéey dafay sukkandiku si yooyu nga xam ne ne ay tënk la yoo xam ne dañ ko teg pour que assemblée générale euh, député yi si assemblée nationale war ci mën a sukkandiku di def li nga xam ne mooy loi di xool politique publique yi di toogal nag gox yi parce que tey man damay toogal

du Sénégal mooy capitalu Sénégal te tey bu ñu ko joxee gëdd di ko defaraat donc war nañu mën a jàppale politique boobu pour mu gën a mën a avancer. pardon. ci centre bi lan lañ fi mën a noter est-ce que. bon li ñu mën a noter nit ñaa ngi ñëw euh, nànk-nànk di voter si donc euh, ñi ngi ñaan nekk xëy na fii ak euh, parce que xam nga centre yi 18 heures tëj am na ñoo xam ne dañuy toog ba au dernier moment ñuy doog a ñëw fekk ñu tëj centre bi bunt bi donc ñu nekk ñenn ñu nekk ci biir aussi di rang di xaar donc c'est important qu'à moment nit ñi ñëw parce que damay wax toujours ne bu amee lu lu am solo da ngay jóg. boo ñëwee dox ko ba pare nga doog a dellu ndékki parce que xam naa ne ku ci mel ni sama mbokk tukulóor yi dañoo bëgg ndékki dañuy toog ndékki ba pare doog a yegg si mais vraiment on sollicite pour que toute la population se lève ñëw voter daal di delluwaat dans le calme parce que surtout loolu la parce que ñun suñu dëkk suñu richesse mooy la stabilité que nous avons tant qu'on n'a pas la paix tey bu ñu ko amul woon du ñu toog fii tey organiser élection du ñu toog ñun ñi ñëpp taxaw fi te kenn di nga leneen sa biir kër donc c'est important de de de vraiment peser sur stabilité du parce que loolu moom mooy sunu avoir loolu mooy sunu richesse au Sénégal. Depuis de cette année, que personne n'essaye de, de, de, de, biaiser le, le vote des, des, électeurs. Donc euh, je pense que si on continue comme ça, ça se passera normalement. On n'a pas encore vu de rush. On a vu justement que... Oui, on me l'a signalé tout à l'heure. Euh, je ne sais pas. Vous savez, les gens votent beaucoup en fin de matinée et au courant de l'après-midi. Donc jusqu'à 15 heures, je pense que... il ne faut pas se faire euh, euh, de mauvaises impressions. Benno avait perdu au profit de Yéwi. Euh, vous pensez qu'aujourd'hui, il peut y avoir renversement de situation Écoutez, c'est le peuple qui décide. Moi, tout seul, je ne suis pas le peuple. C'est le peuple qui décide et ceux qui décident, c'est ce que nous devons accepter. Ce qui est particulier, votre fils est de l'autre camp, du camp rival. Il est le maire de Dakar. Qu'est-ce que, comment est-ce que, quel, comment est-ce que vous... Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Mais il n'était pas maire. Il était maire là où de nous sommes. De la ville de Dakar. Ah oui, mais écoutez, il est dans, la, dans sa continuité. Vous lui, vous il, a, dans, dans quelques, peut-être le mois prochain, il va faire euh, euh, 47 ans ou 46 ans, comprenez Donc il n'a pas 14 ans, je ne suis pas son... père, certes, et j'en suis fier, comme beaucoup d'hommes de mon âge, je ne peux pas le chicoter ou le dire, lui dire tu fais ci, tu fais ça. Non. son, fils, à lui a eu 22 ans cette semaine. Alors quand même. Le soir, Écoutez, ça, pense que ça n'intéresse personne. Le vote, je vous signale, il est secret. Et ce n'est pas moi qui vais euh, dévoiler le secret. Oui, mais c'est quand même particulier, non c'est quand même... Non, ce n'est pas particulier, ça, a déjà existé. je me souviens lorsque j'étais au PDS, on a rencontré des familles où des frères ou alors des parents étaient dans d'autres camps alors que les enfants étaient dans d'autres camps. voilà hmm. euh, ci olof euh, nga wax ñu woote nga ba noppi. li nga xamante ni tey bi nga génnee mooy sa sentiment bu njëkk. waaw euh, c'est-à-dire que njort naa ne dina dina dina fonctionner normalement ndax li ma gis ba léegi. dal na xel li ma gis ba léegi léegi il est peut-être onze heures et demie dal na xel mais nag li ma waxoon. Euh, en janvier moom moom ci local yi moom laay waxaat tey damay ñaan ñëpp respecter électeurs yi respecter texte yi kenn bañ a euh, labaj quoi que ce soit bu loolu bu amee jàmm day am et mu jeex. Benno ñàkkoon na ci ci ci kanamu Yewwi Askan Wi jàpp nga ni euh, wala am nga yaakaar ni renversement situation am. man kooku peuple bi moo koy décidé askan gi moo koy décidé te man kenn du ma man kenn askan gi. ay meeru Dakar te bokku euh, moom mooy fii la war a wote nan nga ko jàngatee est-ce que ça fait pas un peu bizarre c'est pas bizarre man dama yar suma doom yi dans la démocratie waaw kër ga moom foofu politique amu fa waaw donc euh, en février en janvier benn camp gagné peuple bi mooy décider ndax camp boobu moo war a gagné bi yoon am déet c'est ça léegi nag pour le reste du lu bees du lu bees donc euh, choix boobu mais mais choix boobu kañ du defuma ko léegi nii. balaa maa ñëw xamoon naa fu may voté voté ba pare. mais il n'était pas maire de est maire de Dakar man am naa ci ma maa ngi sant yàlla bëgg naa ci euh, góoru Sénégal yëpp yow am suma âge ku ci nekk bëggoon na nekk papam tey. man nag bëgg naa ci kontaan naa ci yal na yàlla nekk yal na ko yàgg a nekk maire de Dakar jërëjëf ñu dem ba tey ñu mën a toog. journaliste wër la ngay wax ñuy voté avec isoloir indi carte d'identité mu nekk fi après ñu amaat une deuxième alternance dans ce pays moo lay wan ne acte bi mu posé woon 1974 moo ëgsi consécration lii la mais exemple aussi pour ñi ci des. man sama yaa moroom ñi ma mag ñi ma magul les jeunes vieux que l'acte citoyen du rek voter mais voter moo ci jëkk wante képp koo xam ne kii am nga ay atam te mën ko te nga jàpp ne yow da nga bëgg lii wala lii dox ci réew mi wala ñu dindi nangam obligation morale la pour yow boo xoolee Ablaye Wade bu ëllëgee nga jóg voter ji jërëjëf. gis ne ñun ñaa ngi voter si jàmm ci dal. donc euh, am na benn maturité bu am solo bu sénégalais yi di wane te loolu mooy réew mi cest à dañu bëgg élection yi ñu def ko si jàmm ci dal et puis à 18 heures incha allah ñu xool fi ndam li féete donc euh, sunu pap sunu maam Abdoulaye Wade fii la voté tout ñu accueillir ko dalal ko ah loolu mooy réew mi jàmm moo fi xëj ah lu rafet ah dëkk ci commune bi dëkku naataango vraiment ñu ngi koy rafetlu di saluer nag euh, vraiment liggéey bi président def yëpp président Macky Sall parce que gis nañ ne jàmm lay woote toujours te si suba ba tey gis nañ ne ñit ñi ñu ngi teg jàmm ak salaam ñuy ñaan euh, yàlla lépp continuer ci dal ak jàmm ba ngoon ak incha allah waaw taux de participation bi ci suba maa ngi koy xool ay 10 heures yooyu on était à pour cent ay midi on était à vingt pour cent c'est vrai que taux de participation bi faible na donc may woo population bi yëpp ñu jog voter massivement parce que élection yi dafa am solo élection yi dafa am solo pour euh, fi ñu war a jëm ah parce que mouvance présidentielle bi su leen yàlla maye ndam ak jàmm ak salaam day tax dëkk bi nekk ci dal dëkk bi nekk ci stabilité ah pour que ñu mën a poursuivre projet yi nga xam ne commencé nañ ko tàmbali donc loolu lu am solo la ci enjeu yi ñu jëm nii